fan yi waxuma la ndindi waaye li ñu jot ci kayit ci Touba ñu agressé leen kenn xamul nu mu toll léegi dañoo toll ci di siif yor ay armu ñëw di siif bëccëg na kam li mu ci wax lu dëggu la am na gëstu yu ñu ci def ñu nag moom 24 millions et quelque ndindi dara loo yéen def nañ ko fa bërki démb centre de santé bu soobee lañ dem dajji ko ba pare jigéen ñi ñu def leen traité leen benn façon boo xam kenn mënu ko wax ci tiitale te dañuy am renseignement yu leer ñi ne ci koñ yi nekk ci gox yi dañuy am ku leen représenté di leen renseigner nit ki kan la ak fan la denc alalam ak nu mu tudd ndax nit boo mënee ñëw ni ko diw génneel xaalis bi nga denc néeg bi lay fanaan am na ku leen di accompagner ak ñëw fii te dëkk bi lañ dëkk nekk ci gox yi ko marché ogas bëccëg ndara kam ki dem def nañ ko marché Ocass place Diop def ko place Xaadim Cuuraay yi dem ci Baye Ibrahima Kare bëccëg jël ci moom 21 millions et quelque. dégg nga dem bay rey ay xale yu ndaw sëñ Mourtala moom ñu sàccoon feeñut sëñ Fallou mi ñu rendi bërki dem rendi ay xale ba kenn mënu leen gis kenn mënu leen trouvé di dem ci ay station di laaj nit ñi xaalis tey li am Touba mosul am sax jamono yi fi sëñ Ablaat nekkee léegi nag li ma jaaxal am na benn question ma dégg léegi-léegi danaa jaaxal mooy post poste gendarmerie. bu mënta am gasoil bu mu pâturer amul oto loolu dañ ci war a wax il faut dire la vérité lu toll ne Ndindi benn oto benn oto gendarmerie mënu ko yor mënuñu am gasoil ñiy def ñaaw tey fi dañuy yor gasoil bu doy yor ay armes yor ay jaasi cëppeelu ci biir kër jàmbur ku yor njabar ak i doomam ni la génneel li nga yor suñ la rayee nga perte soo leen gaañu ñu wala ci yoon loolu dafa ëpp loolu dañ ci war a wax. amu leen lu dul taalibe yi taalibe yi amuñu lu dul yéen sa sëñ Abdou Fana moom taxawaayam maa ngi naan sax duma am na lu ma mënta mais bu am na responsabilité yoo xam ne bu ñu ko dénkoon ci dëkk bi léegi lépp jeex man xam naa ko ci moom ndax am na ay kër yu nangu fii ci loolu ci lu dul jeex léegi nag ana ban taxawaay la population war a am ak ban taxawaay lañ war a def lañ war a téye ci population bi population bi ñoom ñoom la fi police nekkal ak gendarmerie yéen lañ fi nekkal mais li ñuy daj ci quartier périphérie yi dañoo war a génne oto yi di dem ci dugg ci quartier périphérie yi def ay patrouille mais boo nekkee ci kaw tali wala nekk fu jege amoo gasoil comme ni ko sëñ bi waxee say wax laay nettali boo amul gasoil nooy mën a demee ci quartier bi ki ñu toj fii place am barki dem am na quartier yoo xam mën nga faa rey nit fees ko wékk ko boo woo bala ñoo ñëw ñooña dem kon fullaak fayda yéen a ko yoral seen bopp di di di wallonte te yéen kilifa itam bu population bi jëflanteeg ñoom balooru am ca wala gaañ am ca ngeen taxaw nag population yi fu ñu taxaw ngeen taxaw fa mais seen ragal gi ñu ragal di dénoncer mooy ku ci dénoncer ëllëg yoon woola la wala ñu tuumaal la wala ñu wër la gaañ la loolu moo tax ñu ragal deuxièmement il faut autorité yi policiers yi ak gendarme yi am ci ñenn ñu ubbi ko ba population bi ñëw mën a wax ak ñoom di leen jox ay renseignements. ñu di ko exploité te bañ a taayal nag ndax ñoom seen alal suñ alal lañ leen di fay bu ñu taayal am na ci ñoo xam ni ay ay takk der yoo xam ni parce que dañ daan la dañ naan pour ñu dem foofu amuñu gaasuwaal loolu dañ ci war a jóg nit ki bala ngaa sécuriser nit ki da am ay moyen bi ci des mooy yéen xale yi fi nekk bu fekkee da ngeen fi def commission de violence wala jàppalee police wala gendarmerie il faut ñu sécuriser leen. xool tam xale bu jub boo xam ne duñ gis ci moom lu ñuy xebet dugal leen ci former leen ñuy ànd ak police ak gendarmerie ba pare bu amee problème ñu taxawu mais nit ki boo ko dee liggéey loolu taxawoo ko day dem day ba loolu lu am solo la ñun danañ ci ànd ak yéen bu baax a baax mooy nañu nañu wut ay nit ci koñ bi former leen ñu ànd ak police te bu ñu wooyee police wala gendarmerie jot leen ndax ñi am bu ñu feen doon téeméeri gendarme wala ñaar téeméeri policier te waa quartier bi jàppuñu ci tey bu ñu leen dindi. guroo ki la agression am te yow ngay ku bees noo koy xamee ki xam quartier moo la mën a yóbbu foofu am na kilifa yoo xam boo leen wooyee guddi chef de village am na ñoo xam boo leen wooyee guddi ci agression doo leen jot téléphone boo leen wooyee doo leen jot am na ci ñu koy def alaaj Njaay nag am na yu ñu ci dox yu bari yoo xam ne ay këri jàmb lañ ci nangu fii bi ci des mooy drogue affaire agression yi ñi ñu fi rey barki dem muy xëdi sëy xale yi ñu fi rey ñëpp ñi leen di dañuy jëfandikoo drogue yàmba la ñuy jëfandikoo yàmbaa boobu mu ngi ñuy jaay ci quartier périphérie yi mais gars yi duñ ko dénoncé sàngara soosu mu ngi fii ñun li may wax lu ma leer la lu ma xam la koo ci jàpp parfois da ngay dëgër bopp ñu defee rek mais dañuy mujj ñoom ñu ciy ñaan ñëpp jàpp ci ñii def ñaawtee fii ñoo ëpp ñu leen di protésé parce que koo ci jàpp am na mbokkam yu dul jeex yu dul jóg mën a joxe xaalis bu jeex pour ñu bàyyi ko kon nag dëkk bi fokk kilifa yi wax ci lii ñu gis nag bu ci kilifa yi waxut lii raam ci ñag bi la ñëw de fii la ñuy attaqué kilifa gaañ ko wala ñu def ko dara gaa yi doog a jóg ndax ñii ma gis bu fekkente ne par nañ ci taalibe yi ci kilifa yi lañ jëm si. dégg nga li am na lool nag mënuñu ko wax ci biiru mbooloo mais ñun ñu ngi leen di leeral ni fii di Ndindi sëñ Abdou Fatah ne fii matuwaay yi fi war a jël danañ ko jël danañ ànd ak gendarmerie ak police saytu li fi war a nekk ku yor ay fetal ak ku yor ay armo ci yam. loo yor ci ay armes danañ yor yu ni toll loo yor ci ay fetal danañ yor yu ni toll te danañ jàmmaarloo ak ñoom ndax gars yi lii ñu woon jaay leen seen bakkan moo ko fi mën a jëlee il faut mu leer